ma dellu si rek di sant di gërëm mboolem ñu dëkk réew mi ba ci étranger yi te di leen ne man de jàmm rek laa yéene réew mi ndax moom laa yéene sama bopp yéene ku mu ku mu fi bokkal dëkk ak ne ci biir réew mi te bitti réew mi te di Sénégal te di la ñaanal la sama kilifa gu baax nga waxoon rek yaar moom nee du ko def du werante ak kenn te du xuloo kenn ndax xam ne xuloo indi mooy xëccoo dara la mbaa xëccoo ñaar loolu nag parce que yéen des sama dund du ma ko def ak kenn kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balaa di balaa ñëpp wasalaamaaleykum